seraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa yeneen combat yu taxaw gannaaw ba Père Gaston jàllee ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux jàll ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier Vox Arena jàll ci diggante Tyson ak Franc Baba Diaw moo ñëw ci diggante Quench ak Double Moteur njiital Thiam Production démb la fësal li ni mel xam ne taxawal na diggante Quench ak Double Moteur bu dee Quench moom manager am ba Max Mbergane jot na avance bu dugal ci poosam te négociation yi jeex na tàkk presque ca la jëm la woon 2019 bu Lansar jóge ci match ni le juin ci digganteem ak Diène Kairé ñu ne bu Coence jëlee double moteur dafa mel ni day bëgg a fayul magam fëga la bu dee père moom yëgagul dara ci bile combat moom papay Balla Gaye de Double moo xam le combat bi monté guñ ko jotaguma dara ci avance rax ca dolli ne amul kenn ku fi mës ñëw di ma wax diggante Balla Gaye ak keneen bu dee père Balla la moo xam le mooy est ñaari mbër yi sax combat moom confirmé ne ne taxawal na ñaar yëpp la mu xamle woon ci sunu lamb mooy diggante Gris ak Balla Gaye Eumeu Sène ak Bombardier combat yooyu pare na ca ba muy ñëw ay combinaison yu neex la defoon waaye combat yooyee dootul mën taxaw bokkoon na ci plan am Balla Gaye 2 Boy Niang 2 Eumeu Sène Gouye Gui Tapha Tine mu am rëg-rëg Sa Thiès Boy Niang 2 rëg-rëg rëg-rëg Bombardier wala Eumeu Sène Gouye waaye gone yooyee mu boole woon organiser te tey ci alxames ji la fas yéene officialiser yile combat balaa suba ci àjjuma ji danañ xam diggante Gris ak Balla Gaye nan lay mujjee diggante Eumeu Sène ak Bombardier naka lay mujjee bu dee waa kër Gris ñoom dugg nañ ca combat ba te dara xewagul Khalifa Diamay manager ba la mu xamle mooy suñu objectif lenn la rek mooy daan Balla Gaye jàngat nañ combat bu njëkk ba xam nañ lan moo ñu ko xañoon bile combat bu taxawee danañ gis différence lépp lu spectacle bi les combat ko officialiser rek ba mbëri dem ci seeni préparation Boy Niang 2 mañ fi doon tuddal Balla Gaye 2 bu dee Balla Gaye rëcc na ko boo mooy tuwut ci loxoy Tapha Tine lay dali moom Boy Niang amul adversaire Tapha amul adversaire ñoom ñaar wiiri wiiri jaari ndaari lay doon moom Boy Niang digganteem ak Balla Gaye 2 problème mu kasi seen diggante waaye Mansour Diop may conseil la mu xamle mooy Boy Niang du jël Balla Gaye ci moins Mansour Diop ne xam nañ lépp Gaston Boy Niang 2 la soxla moo tax muy wax ak Gris Bordeaux ngir jéem koo tëgg wëndeelu dafa yaakaar ne bu waxee ne revanche la bëgg diggante Balla Gaye ak Gris dana tax Boy Niang waaye millions ku ñu ko fay dunu bëre jërë ngeen jëf mbokk yi li mo li gën a fës ci ëtt yéenekaay bi ñu jox dig daje ba ëllëg incha allah